يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه سوءا شيئا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا nuyu Matar njabootu maam Matar Ndumbe yëpp di bokk ñoom bis bii nga xam ni mi ngi amee ci seen dëkk bii di Koki di nuyu itam ki nga xam ne nag mooy sëriñ bi di a cheikh mohamad euh, alaaji muxtaar naarloo mi nga xam ne itam moo fi wuutu sunu kilifa ga rahimahullahu taala a cheikh ahmadou saxir loo di nuyu ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci daara ji yépp jàngalekat yeeg ak dongo yi nga xam ne ñoo fi nekk di jàng di nuyu wàll itam seeni way jur di nuyu tam sama mbokk yi nga xam ne ñoo bokk mbootaay gi muy mbootaay gi nga xam ni moo dajale ñi nga xam ne mas ñoo jaar ci daara jii di fàttaliku yàlla ci biir loolu sunu mbokk yi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom jotaay bi bokk ak ñoom sos mbir yi te nekkatuñ fi tey di fàttaliku ku mel ne ki sëriñ Sam Mbay alhaaji Jiile Mbay Abdou Salaam Cheikh Abdou Salaam Mbay ak sëriñ Yuusufa Mbay ñi nga xam ne ñooy kalifa yi nga xam ne daal ñoom ñëpp ku ci nekk nekk na kilifa jotaay bi di njabootu Ahmadul Kabir Mbay Imam Cheikh Mbay di fàttaliku itam sunu way jur Saad Ahmadou Lo Ahmadou Lo Kotiari ak Mor Sall Lo mbokkum Oustaz Ahmadou ak képp koo xam ne kii daal bokkoon nañ daara ji wala ñu bokk jotaay bi te nga jiitu nu barsax yàlla yàlla dolli ñoom yërmande ba loolu wiyee maa ngi nuyu sama mbokk yi nga maa ngi nuyuwaat ki nga xam ne mooy jiite mbootaay gi di Massamba Diop di nuyu waale képp koo xam ne kii yaa ngi ci bureau bi ak képp koo xam ne génne koo ci waaye sa liggéey yi ngi feeñ ci liggéey bi di nuyu itam ñi nga xam ne nag ñoo fi teewal ah këri diine yi yëpp gis nañu dem ba tey waa Touba waa Tiwaawan ñi ngi ñëw ñoom ñëpp ñëw ci si ndigalal seeni kilifa di sargal sëriñ bi ci bis bi ak daara yi ñu man ñu man cee ràññee ku mel ne ki sëñ Ahmadou sëñ Basiiru Mbàkke Habib ak sëñ Modou Xabaan bu Mouhamadul Fadel ñëw nañ fi démb am na sax sëñ Mouhamadou Xabaan sax léegi la fi jógee fi la fanaan ba loolu wéyee itam ñuy nuyu nag ñi nga xam ne bi lii amee ñoo tax moo tax ñu mën koo def muy ñi nga xam ne ñoo jël seen loxo def ko ci liggéey bi fu ñu mën di nekk rek fu ñu mën di nekk senegal gépp ak bitim réew jàpp ñu ba li nga xam ne moom lañuy soxla ci bis bi muy dajale ay ndimbal ñu fekk su ci ànd ci ànd ci ak ñun def ko mu gën rafete di leen fàttali di leen mbir bii muy bis bii ah dañ koy tudde ab siyaare nañ ko daa waxee waaye nag du siyaare daa fekk ni nun bi ñu fi nekkee di jàng dañoo gis ni eh, sëñ Ahmadou Saxir rahimahullahu taala jàngal na mu def ci nun lu ci def ci nun li ma def lépp ci biir liggéeyam boobu nag ñu gis fi ay wayjur yu baax yoo xam ne yi sëñ bi nee na fu ñu teewee ci mbooloo nañ leen tudd nga xam ne ñoo daan jàppale sëñ bi ci nga ah, di ko jàppale ci ci li nga xam ne moo yor xale yi ci ñiital sunu baay bu baax alaaji aatu xule mu am nañ ko ak mbooloo moo xam ne mbooloo mu takku la ñu mën cee ràññee ma Maxari Géy waaye la jiitu ñoom nag la jiitu ñoom amoon na koo xam ne kii dañ koy fàttali ko ci barab bi jaadu na muy suñu bàyyi alaaji alaaji Géy bi nekk Louga doon taalibe yi maam Cheikh Mbay alaaji Géy bi nekk sanc bi bàyyi Moustapha ak Xaadim moom bokk ji ci awaayil yi nga xam ne yàgg nañoo jàppale si Ahmad Sakir ba ne mu ba ne mu làqoo suuf ñuy ñëwee nag ñi ma tudd léegi am na ci ku ñuy wax alaaji muxtaar fall mufti ñu xam nañ ko bu baax def tafsir juuf bu bari ñi alaaji njaase amar ca mbakke bawal alaaji moodu saadi ca Kébémer alaaji mouhamadou senaba ca louga ak sëriñ moorloo di nuy waale njabootam gi ñoom daam ak aadama ñoom ñëpp sëñ fàll ak alaaji astal ak euh, wadd ci dëkk bii ak ñi nga xam ne ñoo ju des léegi te ñu xam leen mu di soxna Marème Lo ca Pikine nga xam ne moom sëñ Ahmad Sakir moo ko sasoon ay ndab ak ki nga xam ne mooy El Hadj Mbaye Guèye nekk lax ñoom ñaari ñoo fi des ci mbooloo moom waaye nag mbooloo mu dem mu nekk rek am mbooloo ñëw ne moo tax moo taxaw seen gannaaw ba tax na ñi nga xam ne dañu ñëwaat taxaw ci taxaw ci liggéey bi xëy na bu ñu leen tuddoon fii tey duñu mën a jeex ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu daara ji ci turu mbootaay gi moo xam association islamique lañu moo xam ay association humanitaire lañu moo xam ci gouvernement bi la moo xam fu ñu mën a bokk rek ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di leen ni lii bu ñu ko amee tey grâce ak ñoo ak ñoom a tax di nuyu tam ñi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ci wàllu gouvernement bi muy mel ne sous préfet jàll ci préfet bu Louga jàll ci gouverneur ñoom itam seen loxo ci daara ji wax dëgg yàlla nekk na lu ko di sant ñi nga xamee tam di nuy ñi nga xam ñoo ne yor wàllu wér-gu-yaram gi moo xam ci daara ji la wala ci dëkk bi wala ci biir luga di nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen xamal ni sama mbokk yi nga xam ne nag ñoom ñoom laa bokkal liggéey bi ma ngi leen di di soññ baat bi warut a gudd ndax ni waxtu wi demee soññ bi mooy ñun dañ noo jox ndono ndono li ñu la jox nag ilaa yawmi diini say Ahmad Saxit nee woon na damaa bëgg daara ji nekk xeet xeetlukaay bu ñu jamono kon ilaa yawmi diin daara ji dafay nekk kon boog nun feeg ñu nuy gis dañuy summi ko nekk ay bokk ndey bokk baay liggéey ngir daara ji bañ baña bañ a bañ suux mukk te yàlla du yàlla yaakaar naa buñ ci yàlla du ko def incha allah ndax te wakal ndax te wakal mat laa yel ulya li ñu fiy jàng muy alquran mooy baatab yàlla kaw la jëm kon boog nañ ci gën a taxaw bu baax a baax taxaw itam ñi nga xam ne ñoo yor daara ci biir Sénégal fu fa daara nekk ñu ngi lay félicité di ànd ak yow jël la encouragé li leen sàññ ci liggéey bi ñu jàngal xale yi te itam liggéey bi ñuy liggéey dem ñu sàmmoonte ceeg li jamono laaj léegi ñu koy def di topp xal toppatoo xale yi bu baax di leen yërëm di jàngal di leen jàngal di leen toppatoo ndax itam jàngalekat dañuy wax ni ci mbirum pédagogie la mu gën a bëgg bokk na ja ki mu jàngal bu ëllëgee mu gis ko mu am réussite daara jii nag ñoo ngi sant sëriñ bu baax ndax man bi ma fi nekkee de bi ma fi jógee am na ñu fi ñëw sama gannaaw ñëpp yàlla def na jàng nañ fi ba dem jàngi réewi arab ba nekk ay docteur docteur am nañ fi juróomi docteur yoo xam ne yi sama gannaaw la ñu daara ji te jàng nañu ba am loolu nekk fii daal ji ñenn ñaa ngi di liggéey ñenn ñaa ngi ci gouvernement bi ñuy ñuy sant loolu sëriñ bi ci mbirum mbir ci di sant itam ñi nga xam ne ñoo ko jàppale ci école bi ba loolu wéyee nag la ca des mooy ki nga xam ne moom la ñuy roy muy maam Cheikh mbay dégg naa gis Ahmad Cheikh Ahmad Sakir boo wax ni daana def buñ gàmmoo ba noppi dafa fonkoon gàmm buñ gàmmoo ba noppi bu mbooloo mi ñëwee ba mu ñaan ba noppi danaan toog leen ñu toog mu ni ñaan leen alaaji gi mii alaaji gi mooy ki ma tuddoon ki jëkk a soppi daara ji def ko ay sang ñu ciy fanaan kon boog loolu tam ci loolu ci rey loolu danañu danañu soxla toujours nun suñ bopp ak di ko ñaan mbooloo mi bu yàlla defatee ñu daje fii ba noppi ñi nga xam ne ñu yàppee sëriñ bi te gën cee fés di ko def ci turu ñëpp te bëggu feeñ tax ñu xam leen ñu leen di ñaanal bu baax yàlla doole seen wërsëg bu ñu am tolofu àddina bu ñu am tolofu alaaxira ba lii ñu ànd ak bi mu continuer من الشيطان الرجيم صدق الله liggéey bi ak mboolem ñi mu ñëpp di ñaan bi tabaraka wa sunu jataay yi ñu fi def bokk ci yi ëpp aw yiw ci sunu dund ginnaaw loolu nag ni ko mbokk yi waxee léegi dañoo sàkk woon ci ñun ñu gaaral ci gaaral bu gàtt tomb bi nga xam ne moom lañu tànn ren ca mooy du mooyu alquran walla won ginnaaw alquran ak conséquences yi nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne mën na ko indil nit ki ak askan wi muy dund mu mel ne loolu nag xëy na bu ñu ci waxtaan mën naa yaatu lool waaye ni ngeen déggee ni ko mbokk yi waxee diir bu gàtt lay doon ci ay minute kon dañuy tënk rek incha allah ayaat yi wane ci téere bi luy màndargaal ak wan ginnaaw alquranul karim bari na lool waaye ma ne see jël benn aaye comme noonu la waxtaan wi gàtte wala ñaar jël ko leeral ko insha allahu taala lu jiitu loolu nag dañuy leeral ne won ginnaaw alquran muy wala du mooyu ko dana nekk ci ay anam yu baree baree bari anam yu bari am na anam boo xam ne mooy anamu ñàkk koo jàng nga xam ne yow danga dul jàng alquranul karim sa gët yii doo ko teg ci téere bi sa làmmiñ wi doo ko tudd doo ci tudd téere bi yàlla ñu ci yàlla musal loolu ak anam la ci du mooy alxuraan am na anam goo xam ne it jàng ko la moom jàng alxuraan waaye nag doo ko seetantal jàng gi daal da koy jàng rek jàng bu gaaw def ko ci lu mel ni aada aada woo ko nga xam ne du ci am benn yëg-yëg sa digganteeg sa borom tabaraka wa taala ci li taxoon téere bi jóg nag mooy seetal ko dëgg te seetantal ko dëgg-dëgg ngir xam li ci ay ndigal nga fa yéene koo jëfe li ci ay tere nga fas yéene ko bàyyi am na geneen xeetu dëddu goo xam ne mooy ñàkk koo déglu ñàkk koo déglu nga xam ne bu ñuy jàng alxuraan ci sa wet daanaka danga nga koy yamaleeg ñuy wax leneen lu man lu mën doon lu oyof ci ab jullit nag borom bi tabaaraka wa taala wax ko ne ko borom bi tabaaraka wa taala wax ko ne ko borom bi tabaaraka wa wax ko ne ko bu ñuy jàng téere bi na nga déglu na nga déglu ci say nopp waaye nag na nga ne cell ci saw làmmiñ it ngir war maale ko ki nga xam ne moom mooy wax ca mooy borom bi tabaraka wa taala am na ñoo xam ne fu ñuy jàngee alquran duñ yëgal seenu yaram ne alquran la ñuy jàng borom bi di wax tabaraka wa taala ñu naan la noppil jaaduwul waaye yow yaa war a xam ne borom bi tabaraka wa mooy wax am na ñoo xam ne loolu mooy seenu dëddu alquran am na ñoo xam ne <clears throat> seenu dëddu alquran mooy ñàkk cee yëg dara ñàkk ci yëg dara borom bi tabaaraka wa taala dafa wax ci alquran ne eh, ay jullit jullit ñi dëgg-dëgg jullit ñi dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne bu ñuy jàng alquranul karim dañ koy yëg dañuy yëg ne waxe yàlla la jàng yëg gañ ko yëgi dana leen dolli ak ngëm yàlla waaye goo xam ne bu ñuy jàng alxuraan sa wet loo ko déglu déglu loo cellantu cellantu lu tax nga yëg dara sa diggante sa borom tabaaraka wa taala loolu ak wéradi la goo xam ne gu mat a bàyyi xel la anam yi dëdd yi bari na lool am na yoo xam ne wàllu alal lay doon maanaam yàlla jox la alal nga mën a def ci alquran mën a liggéey ci alquran ba noppi wan ko ginnaaw di def sa say alal faneen loolu it ci anam la ci anam yi dëddu alquran yi qul man kaana fi dalalati falyamdud lahu arrahmanu madda hatta فسيعلمون من هو شر بآياتنا وقال لأوتين وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونرى له من العذاب مدا ونرثه sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu alkarim ñu fàttali mbokk yi rek ñi nga xam ne ñoo nekk ci bâche bi te defuñu dara ñu àgg suuf ñu yor wàllu accueil ñu xoolaat bu baax a baax ñu euh, ñuy fàttali ne alquran dafay wax ne wa ida quria alquranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun kàddug borom bi subhanahu wa buy jub dañuy sàkku wala suñ borom daf ñoo digal ne nañu ko bàyyi xel bu baax a baax comme ni ko mbokk mi doon waxee sànq déglu ko waaye tamit ànd ak noppi xerawlu su ko defee ñu jox oustaz Omar Diop mu ci juróom-benn minute mu waxal ñu ci li nga xam ne mooy waqfu daaray kokki fàttaliwaat mbooloo mi lan mooy bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi hudaahu waqtafa atharahu ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala bokk jullit ñi ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di dalal ñëpp ci seen béréb boo xam ni eh, ñi fi jiitu rek dañ leen dalal waaye ñun ñëpp ñoo ci bokk yem ñuy waxtaanee lu gàtt ci ay waqf loo xam ne xëy na docteur Moustapha Wayal moo ko waroon a jël waaye sànq la ma woo kon incha allah ci juróom benn minute danañ ci jéem a présenter waqf ci nu mu gën a gàttee waqfu baat bi arab la baat bi arab la mais suñ ko doon tënk dañuy wax ni mooy fon yoo xam ni li ko tax a jóg mooy defar moo xam dafa jëm ci ñu ñàkk wala mu jëm ci miskin yi wala mu jëm ci doxandeem yi ak côté bu mu mën a jëmee moo xam dafa jëm ci tabax ay jumaa ki jàkk wala tabax ay hôpitaux wala defar ay yoon walla saytu ci ay jërim bañ mënal seen bopp ñu dem servir seen dëkk waqfu nag day alal joo xam ni l'islam moo ko moom cest lislaam dire l'islam moo créé waqf ku ko jëfandikoo kon war nga cee sant lislaam ndax am na tegtal ankañ lislaam lu mu wax lu ne day fekk am na tegtal ndax yàllaa ci joxe ndigal jaarale ko ci soppeem bi yonentam bi xaritam bi ambassadeur am diggante nit ñi ak jaam yeeg moom mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegtal waqfu lu bare la lool ci quraan waaye dana doy rek ñu jël ci laay bi yàlla day wax ni du ngeen am mukk ak mbaax gu mat sëkk lu dul da ngeen di dépenser ci yoonu yàlla da ngeen di dépenser ci yoonu yàlla waqf nag mooy alal joo xam ni dees ko donn dees ko maye dees ko jënd di jaay waaye mën nañ koo sakkanal la ciy génn muy financer projet yi l'islam yàlla di ñu wax ci laaye ci sourate Al Imran lan tanaalu lbirra xatta tunfiqu mimma tuhibbun وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم mu wax ci beneen laaye nee na tagg ñi nga xam ni dañuy dépenser te bu ñu dépenser duñu saax-saax yi ba yàq waaye tam gaspillage du am waaye tam duñu ñu ba ña ñañ war a jox duñ leen jox lu ñu war a joxe ibnu kasir bi muy firi aay bi rahimahullah dañu yàlla dañoo woo ko gëm niñ ko war a gëmee gëm yonante bi alayhi salaatu wasalaam niñ ko war a gëmee topp ko ci lim ñuy digal bàyyi lim ñuy tere nam gën a matee ñu sax ci loolu mu ni loolu day wanee tam waqf lu ñu war a taxawal la ci société yi nga xam ne jullit yi ña ngi fay dund réew yi ñuy dund communauté yi ñuy dund association yi ñuy dund ñu taxawal ko te ñu saxal ko ñu fi nekk di ko doxal bu ñu faatoo jógee fi ñeneen ñi di ko doxal moom la laaye bi di wax ni laaye bii lay firi والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما mu waxaan ñu ci beneen laay mu ni dépenser leen ci li leen yàlla dénk kon diwoo woo jullit ñépp li ñu yàlla jox mu tuut mu bare ñu dépense ci barana woon bu ñuy wootee ci joxe dañuy xalaat milliardaires yi di xalaat millionnaires yi mais ku nekk am na lu mu mën a def am na contribution bu mu mën a def na ko def moo xam ci alalam la moo xam ci xam-xamam la moo xam ci xalimaam la moo xam ci pouvoir yi ko yàlla jox na ci def lu mu mën moom lañuy woo di ñu woo ñu def loolu yàlla di ñu wax ni وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه kon tegtal waqfu ci hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam hadis boo xam ne amru bnul haaris moo ko nettali mu ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu fiy jógee bàyyiwul dara bàyyiwul diinaar dirham bàyyiwul jaam bu góor bàyyiwul jéebéer bàyyiwul dara lu dul baxalaam bu weex boobu nga xam ni moom la yoroon moom la daan war ak ngànnaayam ak suuf soo xam ni da ko yoroon mu def ko waqf ci ay doxandeem mag ñi nga xam ne dañ koy aajowoo moom lay wax ni maa taraka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda mawti dinaaran wala dirhama wala abdan wala ama wala cheyan illa baxlatahu lbayda allati kaana yarkabuhu wa silaahahu wa ardan jaalaha libna sabil axrajahu cheykhaan waqf waxoon nañ léegi définition bi mooy loo xam ni duñ ko jënd duñ ko jaay duñ ko mayee duñ ko donno mais nag mën na fee nekk ñu koy sakkanal di ko yaxanal di fay ñi ciy liggéeyee bañ mën koo saytu ak yuñ mën a yor moo xam ay boulangerie wala ay euh, train de grande vitesse walla wallu mbay moo xam lu mën a jëm moo xam ci wàllu éducation la ci génn lool yi di financer projet yi l'islam kon loolu mooy définition waqf waqf lan mooy njariñam ndax am na importance waaw waaw am na importance bu rëy rëy rëy bokk na ci tuuti rek mooy day dëgëral relation diggante nit ñi diggante communauté yi diggante individu yi ak ñëpp ndax ndimbalante la te yàlla moo ñu wax nañ ndimbalante ci lu baax ak ragal yàlla subhanahu wa وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب waqfu bokk na ci njariñam mooy day tax communauté yi am jàmm nit ñi mën a jàppoo tampaloo doon benn xëy na xadiis yi ñëw ci fu bari na lool ñoo ngi bëgg a jeexal mooy al imaamu suyuti rahmatullah alayhi daf koo tënk xadiis yooyu boole ne leen muy fukki yëf mu ni nit ki su faatoo léppam day arrêté ba mu des fukki yëf tudd na ci xam-xam boo xam ni nit daf ko jàngale woon nit ñi di ko jëfee comme lu mel ni lii cheikh naa cheikh am saxlu rahmatullahi alayhi def lu mel ni doom joo fi bàyyi woon mu lay ñaanal dalay fekki lu mel ni loo jëmbatoon ay garab nit ñi di ko jarñoo ci ker gaag ci meññin ma dalay fekki mi ngi mel ni ay dex yoo xam ni da ko koo xëccoon nit ñi di ci jariñu mel ni tey kokki gi nit ñi mën a dëgg ñoo ngi sant suñu kilifa cheikh naa cheikh Abdoul Aziz Sylla ci projet bi mu yore indi fi ndox mu neex waaye mënoon naa ñeneen ñëpp taxaw ci ba ñu xëcc ak dex mu ñëw fi loolu tam expérience la boo xam ni maanaam euh, am nañu ko def c'est vérifiable soo vérifié da nga gis am na ñoo xam ni def nañ lu mel noonu te fii yeyoo na ko mën na bokk na ci li nga xam ni dana fekk nit kaamil boo bindoon wàcc ko fi nit ñi di ko jariñee wala ñoo jàngaloon bokk na ci dex wala teen yoo gasoon bokk na ci tam ba tey kër yoo tabaxoon ay doxandéem di ci jariñu bokk na ci jàkk ki jumaag yoo tabaxoon waaye bokk na ci jàngalee quraan lii la ni mën nga koo jël moom lay wax ni ida maata bnu aadama laysa yajri alayhi min fiaalin gayri ashri culuumun bassaha wa duaau najlin wa garsu naxli wassadaqaatu tajri wiraasatu mushafin wa ribaatu saxrin wa xafru lbiri aw ijraau nahri wa baytun lilgaribi banaahu yawi ilayhi aw banaahu mahalla dicri wa taalimun li qur'anin karimin fa xudha min ahadithin bi hasri kon am na ay exemple à imiter yu ñu mën a joxe ci lu jëm ci waqf mooy daaray Koki la chaque taxawal na waqf mille mi ngi ko taxawal waqf wax dëgg yàlla am na ay réalisation tam yoo xam ni jot naa am bu ngeen xoolee kër gee ci golf waqf bi moo ko jur bu ngeen xoolee kër gee ci waagu ñaay ñu leen ko doon doon ko présenté si sëñ bi bu yàggul ci ay weer fu ba tey moo ko jur waaye itam lu mel ni alhaaji abdul aziz silla yàlla na ko yàlla aar sàmm ko barkeel dundam barkeel alalam moom it am na ñetti waqf yoo xam ni def na ko fële ci parcelle defal ko ay waajuram loolu tam ci ay réalisation réalisation yoo xam ni waqf def na ko ci monde islamique da ngay gis ni am na lu bare loo xam ne état mënu koo yor nit ñi ñoo ko mën a yoral seen bopp demal fële ci royaume d'Arabie saoudite al mamlaka al arabia ya am na fa boo jàkkaarloo ko xaramul makki yi da nga fa gis benn immeuble bu mag bu gudd lool dañ koo def ngir waqf mën ngaa jàpp ne lu bare ci liy doxal entretien bi doxal màkk jumaay màkk ji lool yi moo koy doxal ak jumaay Madina ak yeneen yu ni ci dëkk bi soo demee Turquie da nga gis même ñu def lu ni demee kon lool yi bu ñu war nañoo xam ni mën naa mën a am fii fu nag amoon na fii Sénégal bu yàgg mën nañoo jàpp docteur Wayal mi ngi naan maa luy toll euh, boori 1906 ku ñu wax góor a Jóob taxawal na fi wax muy dox ba agsi ek daara ji itam am na projet ci waqf fëleti ci liberté 6 gannaaw ba nga xamee ne waagu ñaay àgg na cheikh na cheikh ahmad muxta alaaji muxtar naarloo hafidullah wa raa dafa wax ni nañ jublu ci liberté 6 am nañ fa cent 1104 metre maanaam carré yoo xam ni liñ ci bëgg mooy liggéey ba tàmbali na kon jullit ñépp ñi ngi leen di woo ci loolu waaw ñu tënk jeexal nañ xëy na waqfu bi tàmbali na waaye am na beneen bu am doole boo xam ne tàmbali na mooy wa jaahidu alhaaji as ndaw hafidahullah wa taxawal ko kon loolu lépp dafa bokk ci ñi nga xam ne mën nañoo servir daara ji benn baat rek soo ma ko mayee Cheikhna Ahmed mooy ma tënk ñaari benn minute mooy euh, di ci kii euh, bandiraɓe sehilaaɓe tedduɓe on calminaama on njaaraama on njuuraama min ngolnoo yewtude e ko faate waqf al waqfil islam waqfu noon raɓɓininde ko allah noddi allah wi ko oye mon juulɓe son noddama e ko wurnata pittali mon notoyeɗe ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuhyikum walamu anna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbih وأنه إليه تحشرون وقف ونكو جودي نغاندودا ronetaaki yeeyataaki rokkirtaaki kono noon ina waawi gollireede yimɓe ne joɓee heen ko yaltata heen ko na feewndo projet ji l'islam ko faate jamaaji ko wayi noon sen joginoma jama tottuma yeru tan taw jama ka yehi haa hiiɗi eɗen mbawi ƴettude e jawdi ndi ɗon fewnden ɗum ɗon nden eh, on mi on oɗon jarlo oɗon jaafo jinnomi tan ko tottude seeɗa tan e annami wakfu maa ngi jeggulu bëggoon ñi nga xam ni xëy na pulaar lañ gën a jekku maa ngi dégg kii buñ présenté di présenté ñoo xam ni xëy na ñu dégg ko ñun ñëpp ñu sumb ci suñu loxo ak làkk booy mën a wax ak foo mën a dëkk subhaanaka allahumma bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayka wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh eh, sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman amma baadu asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñiy déglu ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ ak ki nga xam ne moom la yàlla tofal ci koom sunu sëriñ Cheikh Mouhamadou Mokhtar Naar Lo ak yàlla tofal ci ko muy sëriñ Mouhamad Fadal Lo di ko siyaare bu baax di siyaare tam bépp kilifa goo xam ne dagg nga sa itte ñëw fii ci daaray Koki man maa ngi wax ci turu Gambia yépp waaye nag di ci jagleel mbootaay bi nga xam ne ñoo toog Serakunda ak li ko wër te nekkal fa daaray kokki li ñuy def mooy di sant rek di gërëm ndax xam nañ ne daara ju mel nii daaraay international la ndax tey gàmbi gii nga xam ne tey falaa nekk daara yu bari yu xam ne mun nañ leen a lim ñi jóge ci daaray kokki ji daara yu bari lañ yu xam ne ñu ngi foofu ci Gambia di liggéey ñaareel bi it doomi Gambia yu bari ñu ngi fii ci daara ji di jàng te dara warut leen fi loolu mooy li tax ñin ñi toog Gàmbi di góor góorlu suñ kem kàttan di dajale suñu tuut di ko indi fii ci daara ji nga xam ne ki ko soso muy Cheikh Omar Sakhir rahimahullahu taala daf ko sosoon di jàngale di yar ngir yàlla yal na ko yàlla yërëm jéggal ko sëriñ bi mu bàyyi fi di seex muxtaar naar loo tam nekk di seex boo xam ne jàngalekat la yarekat la te lu bari xam nañ ko ci ndax dund nañu ak moom mu jaar ak ñun fu bari ñu ngi koy ñaanal wér ak fan te di leen jottili cant ak waa Gambia yépp ndax man laa yaskuru naasa laa yaskuru laaha képp koo xam ne du sant nit ñi du sant yàlla waaye ñi nga xam ne ñoo faree Gàmbi amee nañ daara ji cant goo xam ne bu dee am na fu mu tàmbalee xam nañ ne fu am fum mu yem moom du ko am mukk kon dañuy dénk nag ñi nga xam ne génnee nañ fi kenn ku nekk na sol mbubam sëriñ bi moo xam ci lu mën a yëngutu rek mu fexe du yëngatu ci loo xam ne luy dundal daara la waaye dañuy dénk suñ mbokk yi nga xam ne jógee nañ fi kenn ku nekk bu muy def loo xam ne loolu luy yàq xale kuy jàngale daal ndax am na ñoo xam ne mun nañu génnee ci daara di def defin yoo xam ne yow mi nekk ci daara yi nga di leen ñee te fekk danga xamul rek waaye mu Musab ibnu Zubayr dénkoon na doom ne ko yaa bunayya utlu bil ilma in kaana laka maalun yakun il ilmu jamaalan laka